Nggih. Lawan lawan trek film bi la ñuy bañ a sarabi. Dañuy bañ nga dugal belum ci ci Wah, mais mais attends mais xaaral xaaral mais ki xalaat mana manam mom lolu ci fan la ko tek parce que koku professionnel la su bëgg di bob boobu gaay ji deug bax déglu bu professionnel la wax waxu far mais waxu lamb la lay wax koku rek lay deug waxu lamb da lay analyser lamb so ak bir ne prix Boy ñal lan la wone a a def ci kaw balé non Boy ñal lu muy def mom moom côté la ñu suñu côté lañ xam en tout cas dal nañ ko may une bu ñewulé bu ko fekkee mu xam ni lepp dëgg la. Balla xaar wala. Ah, une minute ñu mu waxoon dañ ko ko xaar ba pare imminent su ñëwulee ñun dinañ dem loolu nga gis bark sëñ Tuubaa su booy ñaar taxawee di arrière nag Balla Gaye lan la war a def day dem Balla Gaye mënul taxaw day dem mënul taxaw Balla Gaye bi gaynde ñëpp pikit yëpp bu taxaw ci ginnaaw booy ñaar sax day dem moom kenn mënu la taalibi sëriñ Basiru Baara du ragal fitu gaynde moo nekk ci ci dëndam xamante ne ñoo fowandoo ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp du ragal ak sëñ Tuubaa yooyu xoqatalu ko de kon xam dañ lay bàyyi ba ci kanam bu ñëwee ba ca kanam mooy man ak yow ba ci biir stade bu ma la may daal amul bàyyi bu laa mbañee jeexee tamit amul bàyyi dañuy dañuy ñëwaat en tout cas daal li gën daal yàlla ko yàlla def non dañuy daan li gën moom mooy bala ñuy dana am di wax waxu